asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk auditeurs yi déglu Safina ci 98 point 2 di ko seetaan ci Safina TV macha allah ñu nekk fii tey ci CM Scat Urbam li nga xamante ne nag ñetti fan yi ngay Thierno Hamidou Bane loon muy le 11 le 12 ak le 13 le 11 bi nekkoon euh, xadaratul juma bi macha allah ñu gis ni macha allah depuis lors Thierno Bachir Tall xalif général omarien yegg si na fii ci kër gi euh, fanaanandoo ak ñun xëy ñu def euh, samedi bi def cérémonie officielle bi macha allah mu waxtaan fa ba bokk jullit yëpp kontaan loolu nak tay ñu nekk ci 3e ak dernière journée bi euh ñu ko baxaw di défé chaque année euh, journée de consultation médicale gratuite euh, la ñuy def ñukoy faral di défé fi ci CEM Scat Urbam ci loolu nak euh, ñu ñëw fi tay xol ni mbir yi euh xol mbokk yi nga xamante ni ñoo ñëw faju ci ñu wax seen impression inshallah allahu taala dans ci dikk laataa loolu nak ñu dalal kenn ko xamantene ci comité d'organisation bi la bokku muy Lamarana ñu gérer journée de consultation médicale gratuite Lamarana bismillah dalal ak jàmm ci Safina FM 98.2 Safina TV bismillah. salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ak auditeurs yi euh, ni mu ko waxee euh, comme chaque euh, année ni ñu ko doon defee <coughs> ren yàlla dimbali nañu ñu defaat ko ndax def na ñaari at wala ñetti at yoo xam ne Covid bi dafa ñëwoon ñu arrêté ko kon nag suñ ko reprendre atee dañuy sant yàlla bu baax ndax li xéwal kese la ñetti jours yëpp. xéwal la euh, bu bu ko la journée tay bi muy consultation gratuite bi euh, commencé ko depuis 9 h donc euh, ñu ko war médecins, def moy médecin yi ñu ngi tamit depuis 8 h ñu ngi fi. ils sont venus même avant mise en place bi donc 9 nous lañ commencé def mise en place bi organiser wu dans quatre salles salle bu ci nek amna ben médecin bu fa nek euh, affaire yi déroulée normalement on a des listes ku nous dañ les inscrit ci liste bi jox la chaise après on sa tour ñu la fi mhm. donc pour le moment tout se passe bien. comme d'habitude comme nous avons fait les médecins année tout le matériel qu'il faut. Mhm. Avec seen médicaments avec tout ce qu'il faut avons une consultation mhm. ku ñu ci euh, xool gis ci jàngoro ñu leen la may garab mm-hmm. après deen la tamit recommandé nga dem pour ñu suivre la. macha ci yeneen euh, ci yeneen yi donc mën nañu wax ni du ñàkk mu am suivi. koo xamante ne bindal nañ ko mu am pathologie boo xamante ne ñoom dépassé na seen seen seen capacité dinañ am suivi boo xamante ne dinañ la gunge. nga mën a yokk mbir yi ni mu waree. loolu mooy intérêt kii bi sax euh, consultation gratuite bi ndax euh, consultation gratuite kenn mënu cee faj nit. Mhm. mais nag mën nañ gis sa jàngoro. Mhm. ñu may la garab commencé la benn traitement. Mhm. après dinañ le top suivre la. jël say vous bu que cas critique là mhm. ñu recommander le suivre la. vraiment loolu est intérêt bi. vraiment loolu est loolu loolu moo ci am solo essence consultation gratuite bi. macha allah la Lamarana ñu avons a puusandi tuuti ñu fekk fii ñaari xale yu góor ñoom tamit ñu toog bokk ci mbir mi ñoom ñooy enregistré nit ñi nga xamante ne ñëw pour euh, euh, ànd ak ñun ci journée de consultation médicale gratuite euh, bien sëñ bi noo tudd. man Seydina Issa. Seydina Issa ki nga feggoon. Modou ma gis ni yéen a yor kay yéen a enregistré di bind ndax euh, suba ba tey affluence bi bari na wala. Ah, essence bi moom waaw muy xaw a sakan tuuti nii rek. Mhm. waaw mais ñu ngi si ngi si liggéey bi. waaye gis nañu ni ab organisation am na fi amul buuxante amul pëccoxoo amul dara. amul benn désordre. Mhm. oui am nañu organisation bu baax. macha allah macha allah bi tam ñu ngi wuy si. waaw ngi ñëw si nànk-nànk. waaw kon baax na ñu bàyyi leen ngeen liggéey ba ci kanam incha allah. ñu wéyandi liggéey bi ba tey euh, fii ci SEM Scat Urbam ñu daje fekk benn soxla moo tam mu ñëw xanaa pour bokk ak ñun bës bi soxna si noo tudd. Mati Diop Mati Diop. waaw euh, fii ci Scat Urbam nga dëkk. waaw dëkk waaw lu waral say tànk ci biir CM bi tey. waaw ñun dañoo nekk ci ci jumaa ji di mm-hmm. jàppale waa jumaa ji di fi bale ma nag sama mbokk mi loota ca am. est mm-hmm. mm-hmm. ci bi loolu ñu gis ni di mbir yoo xamante ne Thierno Hamidou Bane moo ko taxawal euh, buñ la waxoon tuuti nga wax ci loo xam ci Thierno Hamidou Bane mi nga xamante ne moom moo waral journée de consultation médicale gratuite lan nga ñuy wax. xanaa nag mu nekk nit ku baax. ku jullite ku yaatal ku social wax dëgg yàlla ku am diine loolu moo tax donc imam bi ñuy woone ak bi ñuy woo bi muy woote mi ngi ci moom macha allah mi ngi ci moom ndax mi ngi taxaw gox bi nga xamante ne moom la fi bàyyee waaw escadre bam ñëpp kontaan na ñun fii lañ dëkk rek côté jumaa ji mais ñun ñëpp kontaan ci paa bi macha allah yal na ko fi yàlla bàyyi yàlla may ko fan bu gudd ba ànd ak wér amiin yàlla kàttanal ko amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf soxna si ñu wéyandi liggéey bi comme niñ ko tàmbalee depuis suba ba tey fii ci Simb Scat Urbam ni ñu ko waxee ñu ñëw ci journée de fraternité musulmane yi Thierno di def ñu nekk ci troisième et dernière journée bi tey di def consultation médical gratuite ñu ñëw nag fekk fi ñi nga xamante ne euh, daanaka euh, mën nañu wax ñoom ñoo yor pharmacie bi euh, madam woon ak collègue am macha allah gannaaw Xadijatu bokkum gannaaw boo nuyoo mbokk auditeurs yi déglu Safina FM ci 98 point 2 di ko seetaan ci Safina TV nuyul mbokk yi ba pare ñu door a wéyandil waxtaan bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. macha allah ñu gis tey ñu ñëw fi fekk fi ay garab ci kaw taabal bi lu waral garab yi. li ko waral nak tay wa Teranga Pharma ño fi nek pour accompagner tay euh, journée tierno yi. Mhm. Teranga Pharma nak dafa nek ben industrie pharmaceutique sénégalaise bo xamné ay sénégalais ñoo ko moom. ay pharmaciens sénégalais ay médecins ay chirurgiens dentistes ay paramédicaux. Mhm. ño jël sen alal def ko ci. pour rek euh, defar ay garab yo xamantene ne pour fajj sénégalais yi. wa Teranga Pharma ñu gis ni du tay gulet ngeen ñew fi ndax barki dem ci guddi ñew ngeen fa machallah and ak délégation bu importante ngeen ñew ci tierno euh, indi fa lo bu mag tierno kontaan ci. neena du mëne sax wax waye nak ndigal la rek ndigal ndigal mo tax moy wax muy wax nee docteur Ngaye Do mom ñun ci ginaawam lañ top ku nanguwul bootu doo musa boot moom yàlla def na moo fii suñu mag bu jiitoo ñun dañuy sawar biñ ko gisugulee woon dañ doon xiili xaala waaye bu mu teewee rek xel yépp daal dal tey nag consulté nañu trois cent malades. nee ci malades yi ñi consulté. nit ci gën a seetlu. mooy ñu ëpp dañoo am problème tension. ñu ëpp it dañoo am problème mu diabète. mais ñi ko am ñëpp weesu nañ weesu juróom. juróom fukki at loolu nag lu muy firndeel. mooy d'abord màgget am na. Euh, waaye li nga xam ne moom la jëfandikoo ci lekk. tey tamit ngeen def la même chose ngeen ñëw fii euh, gën a feddali euh, seen kóllëre ak Thierno Hamidou Bane su ma leen waxoon ngeen wax tuuti ci Thierno lan ngeen may wax.

non incha allah ñi nga dañu door a tàmbali rek lii moom ñi ngi door a tàmbali waaye incha allah moom day wéy macha allah comme ñu soxlaa rek ñi ngi fi ñi ngi ci wetam ñi ngi koy jàppale ñi ngi jàppale population parce que ñun ñaar ñoo bokk objectif jeex na kon nag ñu wax waa teranga farma bisimilla ci daayra safinatu saadaati bu ceerno hamidou ban bisimilla ci kër ceerno euh, hamidou ban ci loolu nga feggoo ak sa naataango di madame won moom tamit macha allah euh, caggal nde calmin ɗa bandiraaɓe hetto bi safina fm et 98 point 2 hetto bi safina fm e euh, safina tv o holko mbiyata bandiraaɓe ɓe assalamu aleykum safina vraiment mi weltima weltaade mawnde min dañ gila no min nartodire e ceerno ceerno ban mhm. euh, mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin sayimo tan andata ko neɗɗo allah anani ɗum noon ko weltare mawde mawde mawde min gari ɗo henna hande nangodirde e makko e journée consultation gratuit mhm. ɗo henna to e ceerno alhamdulillahi rabbil alamin minen ko min mbiyete ko terange farma mhm. ko industrie pharmaceutique mo <coughs> alhamdulillahi rabbil alamin plus de 670 médecin et pharmacien kañumen ndendini gandal mumen kalis mumen paɗani en hay goto alhamdulillah min mbaɗi industrie pharmaceutique o pour la première fois goo goo e sénégal pharmacie en foni ndendini gandal mumen e kalisaji mumen mbaɗi usine ganduɗa joni minen mbatti wadde leyɗe ɗe taw natta ummade hankkadi caggal leydi mhm. emin ñaagui allah noon komin puɗɗi hen ko emin ñaagui allah yim fof nanga heen mhm. enen fof ndenni ɗum enen sénégal e fof ndenni ɗum mhm. par ce que so yayri yes ko enen fof ko nafoor men enen fof mhm. jooɗoto nden kadi en ngaddoya leɗɗe baŋnge goɗɗo eɗen leyle ɗo goɗɗe walla yimɓe ngara jannga ɗo henna ɗo e université dakar min jangguide e maɓɓe dutto leyɗele maɓɓe ɓe jeeha ɓe mbaɗa leɗɗe ɓe ngaɗa ɓe jeeya en i enen en dañta fulle fayde koye men darɗen mbaɗen koye men leɗɗe men anani ko ɗum noon woni ko teraga farma woni e wadde machallah kono eɗen mbawi wiide teraga farma ko structure kesso gummiɗo pour wallude ɓiɓɓe leydi ɓe no cafrori taw ko ganduɗa kala koɓe kutorto taw ko moɗon ummi alhamdulillahi an tigui yiti ɗum tigui hen min goni e ɗum min puɗɗi emin ñaagui allah kadi ne médecin uji ɗi nanggana min hen infirmier ji ɗi sage femme uji ɗi docteur euh, ɗum ɗo en chirurgie dentaire e foof mm -hmm. dum don dal ko won senegal sénégal ɗum woni euh, teranga farma ɗon yaaja nde garɗon ɗoyti e neɗɗo allah ceerno hamidou ban euh, garɗon yantude e do programme mo len kono eɗen mbawi wiide alhamdulillah gueɗɗe yuɓɓi par ce que kanko kala ko mimi fo barkinto e ko junggo cheikh oumar won don teranga farma ari jeyam hen kono ko yettere alla tan wiete machallah holko mbaynortoɗa e mbasirtoɗa renno go ko fati ko e bangal cellal weltade weltade parce ce que ceerno ko wadi ko ko hunde mawde wallude yimɓe ɓe ngannduɗa tawa doole mumen keewani anani ngaɗa jiya docteur ƴewto ɗumen ƴewto ɓalli mumen safra ɗumen winda ɗumen ordonnance gara ɗo e terrain ko farma kadi min totta ɓe leɗɗe taw fof ko gratuit yalla yalla yoɓ ceerno yo ɓoye ardaade min yo allah barkin fof min beltima no feewi no feewi teranga farma kadi yo yaaru yesso ya barki cheikh tidiane amin ya allah ñu wéyandil ba tey liggéey bi comme ni ñu ko waxee safina moom euh, ndey ji seex la njaaxaanaat lay tëdde ni ñu koy defee ci wolof noonu lañ koy defee ci pulaar euh, ñu feggoog fii suñuy yaay yoo xamante ne macha allah jógee dëkk dëkk ñëw fii pour euh, fekkee ci programme bi nga xamante ne Thierno Hamidou Bane tëral na ko ni ñu ko waxee sànq tey nekk nag bés bi mujj bés bi nga xamante ne ci la ñuy def consultation médicale gratuite macha allah ñu nekk fii ci CMS 4 urbain ñu déglu waa pharma ñoom tam li ñu wax ak euh, ñi nga xamante ne ñëw nañ fii pour euh, xool seen wérgu yaram ci loolu ma ñu fekk fi suñuy yaay ñoom itamit euh, gannaaw bu ñu nuyoo calminoon bandiraɓe hettoɓe safina fm 98 point 2 bandiraɓe yeeɓoɓe safina kadi e safina tv assalamu aleykum bandiraɓe safina fm kardogol ceerno men ceerno hamidou yero bang on calminama kadi on juurama kadi on beltanama ha woni gonga en calmini foof en juurima foof en beltima noon kadi e ñalawma hanki o ñalawma heccanki o ha e hanki o foof en beltima hen kadi en dañi hen weltare weltare nde kadi ko ceerno men ceerno basiru garangal muɗum ɗo e ziyara ceerno meɗen ceerno hamidou yerbam en dañi hen weltare ha woni gonga machallah jii kadi hannde e min tawma ɗo e cms 4 urbam ene waɗe journée de consultation médical gratuite gadɗa ko ƴewde ɓanndu walla gadɗa ko duusde eyyi ɗum kadi ne moƴƴi saabu cellal woni hunde fof saabu sa sellani a wawa jogade kadi haydara mhm. hannde noon min gadi kadi ko ƴewtade ɓalli ɗi min gari kadi ko ƴewde ko min dañi neɗɗo kadi ko celluɗa foof aɗa yiɗi kadi ƴewtade ɓandu ma kadi ha ɓuura kadi sellude eyyi mhm. e min jetti allah kadi min jetti ɗum min jetti kadi sababu gadduɗo ɗum o mm. machallah e hol dayiraji jeeyaɗa min ko min woni président dayira dumga law mm, buuɗi sangot mhm. to dumga law nen buuɗi min beltima no fewi eɗen mbiya tan yo allah hokku hen wattude ni o saaha mo wuuri inchallahu taala a jarama aha gabboɗen seeɗa jeehen kadi e yummen goɗɗo kankone machallah koye gallo o jeeya e, jogui kadi dayira mawɗo caggal nde goppuɗen mo kanko o initi o haala hol dayira o jeeya yimɓe puɗɗo nadde yewtere nde e. eh, assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatu safina tv mi salmini won mi juuri moon safina fm eyyi alhamdulillahi rabbil alamina allah en jetti allah no fewi min jetti on kadi e weltare e sababu kadi gadduɗo min ɗo e yettude allah kadi e yettude ceerno men ceerno hamidou yero ba sabu miɗenne min min jeeya koye safinamo ceerno hamidou yero ba <coughs> ko min albuɓe makko koye dayira makko kadi min goni dayira sokhna mariame e kañum holli min ceerno hamidou yero ba ceerno kadi kañum holli min ceerno basir talmo louga ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamina allah en jettihen allah no fewi en jettiɓe min gari min ñaguima duwawo min donima ɓesguji amen kadi allah addi min ɗo kadi hande kadi amin ƴeewa kadi cellal ɓalli ɗi kadi ɗum foof ko yettere allah e sababum ceerno hamidou yerɓano tuggandema galle aljuma faade ñallagal hande amin ñange e ñalawma o min nangiri hen ko yiide hen ɓuural yiide hen ɓamtare saabu kanko ceerno hamidou ko gorko julɗo dewo allah jokko enɗam baɗiroo sabu allah ko ganndo kadi mo ganndal muɗum ɓurnaaki fiirtaaki becce kadi sohna mari ko ɓiɗɗo moƴƴo nganndanɗaa hoore ma omo woppaani mawɓe o woppaani sukaaɓe omo waawno wiide tan ko fedde makko nde o yaadata nde tan ko ɓeeno ƴeewata kono won noon ko moƴƴo ko jurmotooɗo ko jurumdeero ko badiroo sabu allah ɗum tagi hay gooto o woppaani ko jalo gumɗo ɗum noon e ko yettere allah no feewi ɗum mbi tan yo allah junɗum yen ɓooye arde ɗo ñaagaade duwaaw oɗo noon ko nene moon hajja huray sangot to ganawra e dakar gardiɗo dayira ganawra e dakar on salminama ɗum salmini noon eh, safinaga tv foof guila e rewɓeɓe ha e worɓeɓe min jetti hen allah min jetti on kadi on jarama darde mon yooɗi machallah Ah, machallah ummiraɓe ah, ɓe calminama ɓe beltanama kamɓe foof waɗaɓe ɓe interview ɓe e kalɓe ɓe e oɗo programme ka artuɓe ɓe e journée de consultation médical gratuit artuɓe ɓe kadi e ñalɗi tati ɗi foof machallah en gaddi hen ha ɗo machallah mbokka auditeur yi déglu safina fm 98 point 2 diko setanti safina tv machallah ñu ñëwoon fii tay ci sem scat urbam ah, ngir teewe eh, nemme ko si li nga xamante ne mooy journée de consultation médical gratuit bi nga xamante ne ci troisième journée programme ceerno hamidou bi la bokkoon macha allah euh, ñu gis nag réaction ñëpp euh, ñi ñi faj ñi faj ñi organiser ak ñi ñi ñi yor farma bi yëpp macha allah ku ci nekk joxe ci appréciation bu positive euh, donc nag duñu def lu dul jaajëfal mbokk auditeurs yi jaajëfal suñu technicien suñu caméraman ñaanal tamit Thierno li mu def ren yàlla mën loo ko lu ko raw déwén incha allahu taala. ba ñu demee bay génn fi nga xamante moom mooy SEMS 4 urbain bi ñu dajeek ndongo daara yi nga xamante ñoom la Thierno fii ci euh, fiis euh, ci institut El Hadj Omar bi macha allah ñu feggoo nag ak seen ustaas ñu ñëwoon ñoom tamit euh, di daw di dugg si ci biir bërëb bi ñu jox leen micro salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo tudd. Moussa Moussa. foo ci daara Thierno Hamidou bi. xool ko nga daa gaay. ko consultation aɗa ƴeewa ɓanndu ndu machallah machallah aha aywa bisimilla naati no mbiyataɗa mamadou touré mamadou touré ko adduma gaay sama yaram day sa biir mooy metti wala yaram bi biir bi kon docteur bi nga bëgg a gis aywa duggal machallah oustaz macha allah euh, fii ci Safina FM 98 point 2 ñu nekk fii ci Sem Scat Urbam ñu dem bay génn doon def suñu liggéey dajeek euh, ndongo yi di daw di dugg si si biir bërëb bi euh, gannaaw boo nuyoo mbokk auditeurs yi déglu Safina ak ñi seetaan Safina TV lan ngay wax mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu baax di leen ziyaare di leen jaajëfal si taxawaay bi ak ci liggéey bu rafet bi. Mm-hmm. waaw dañoo déggoon consultation bi rek ñu laajoon ndigal. pour ñëw fi pour xal pour xool xale yi. yeen jàngoro ñoo ci yaram ak lim lu ñuy tawat ñu bolé leen médecin ñu xool leen. luñ ci man ci saafara ñu ñu ñu dimbali ñu ci inshallah allah. macha allah ñu gis ni macha allah Thierno Hamidou taxawal ñetti bëss aljuma bi ñu def hadratul juma ci guddi gi Thierno Bachir da ha ñëw fanan ci fi ni samedi bi ñu xëy def cérémonie officielle ñu dem ci tante ba macha allah Thierno Bachir waxtaan. jullit yëpp kontaan tey ñu xëy euh, muy ñetteeli bés bi muy journée de consultation médicale gratuite bu ñu la waxoon nga defal ñu benn résumé ci Thierno ni jàngat bi nga def ci moom ak jéego yu muy teg lan nga ñuy wax oustaz. waaw xanaa wax ju gàtt rek te mooy ni ku bëgg lu baax la te li muy def rafet na nit ñi rafet nañ ko ndax lu mel ni organiser ko daal taxul ma mu yomb. lu mel ni bisu àjjuma nga def li ci war lépp ci ni ko xat euh, tariqa tijaani waxee xadaratul jumaa Euh, ba pare nga def waxtaan def genre gàmm yooyu bis bi jàll samedi bi ñëw nga def ko euh, nga nga def takkusaan bi mu rafet mu réussir ba Bachir ñëw ñu teertu ko teertu rafet ànd ak moom waxtaan ñi jarñu ci moom ñi gis ko tëbb ci moom loolu yombul mu des dimanche bi ñuy ñëw mu maye gratuit nit ñi ñëw xool seen yaram te it wax dëgg yàlla ku ne xam na ni Sénégal li fi gën a jafe mooy faju buñ ko maye gratuit wax dëgg yàlla loolu moom kon yombul te bu doon sax da ngay ñëw ñu faj la rek bindal la ordonnance nga dem waaye da ñëw ñu bindal la ordonnance ba pare jox la ay garab yi nga xamante ne moom nga soxla dëgg la loolu moom loolu moo gën a jafeet sax mhm. Sénégal ku ne xam ne nit ñi moom la pare may lay may la garab aussi tamit maanaam nga yi mhm. loolu loolu tamit beneen la wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu daal wax dëgg yàlla euh, rawat na tamit ci tout yi parce que ñun ñooy nekk ñoom mhm. mais léeg-léeg ñoom ci wàllu wàllu ba ci sa am na xale boo xam ne muy ci biir tànk moo xaw a am problème waaye teewul dañuy dañuy jànkonte moom baax a baax waaye wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na mhm. liggéey bi rafet na ci ñett ci ñett fan yëpp mhm. wax dëgg yàlla rafet na macha allah jërëjëf euh, oustaz moom mi encadré xale yi nga xamante ñoo nekk ci tafis euh, internat bu Thierno du Bane macha allah euh, nongo yi mën ngeen dugg bu ko defee sàmb bale waale leen le temps ngeen ngeen yegg ci biir macha allah gisee Cheikh Namadou Tidiane